foo jëm. Collé foo demoon. Collé yow moom nga sa bopp de. Collé suba ba tey nga teg fi sama bi muy xam tàggoo xamuñu foo dem ba mbaayee demee ba léegi ma solu bëgg a génn kenn nekkul ci kër gi. Collé yaa bon. Collé xamal ni jigéen nga te jigéen. dafay gàtt tànk bu ni ma bàjjan bu ni ma bàjjan. Collé lu ma la waxal sosuma ko su ma ko wàññiwul sax yokkuma ko Collé ci def nga dëkk Collé fan nga demoon. waaw waaw loolu moom moo war a wax ma demoon banque retiré xaalis. ma yónnee xaalis xam nga rek. yow Collé xëyoo gonto foo jëlee xaalis booy retiré. waaw xam nga rek boo nekk autorité nag autorité yi lay de tamit ngay jëli dañ ma yoon yónnee somme. waaw waaw kii de mooy Collé Collé Collé kon yow léegi dangaa nekk ci dëkk bi di def naka su noonu Collé bu a yónnee xaalis lu xew ak looy doyee xaalis waa jën nag yow tamit xam nga man autorisation bu ñu yóndee ma lu facile la am samay nit ñu baax rek ñu ma yóndee léegi nag xaalis bi li ma ko doyee c'est simple yaa ne woon ni Pape Cheikh Pape seexu ñëpp la kee moom ñoo na fi alxam jooda def ay affaire am ma ñëw wax nga ne ma xaalisu mariage ba léegi nag liggéenti naa sama xaalis envoyé nañ ma sama xaalis damaa bëgg nag dox ci wax ci def sama yëfu bopp. maanaam. waaw dama bëgg dem ci ci ci presse bi écrivain yi photographe yi caméraman yi fépp li jënt ko ba mu ne koroj na kocc li ma njëkk def nii léegi laa koppeek Mouhamed Ndiaye bu TFM daf may invité xalaas en direct en live dañ may wone di wane photo Pape Cheikh la nii ci wet bi en famille waaw ma wax parce nag jàngoro boo ko weeru du faju damay dem dox ci wax ci ñu def ma tax sama photo ak yow ak bosu pap Cheikh ñu wane lépp ma expliquer situation bi mu demee xamal ne la woon na la waaye numéro ba numéro bi kenn mu ngi ko génne yooyu du ma ko bëgg a li junti ko nag ak samay façon ah kontaan nga xanaa kontaan nga ci lii moom xalaatoo woon ne dinaa ko def gis nga fi may xalaatee man nee naa la intellectuel lay jooy waa pas intelligent dinaa régler lépp man li ma def yàlla moom laa xamul lan la. kon yàlla kay man ñàkkul ni rek. billaahi am na lu ma def suñu borom yow Kole nag jeexal nga ma tàkk lii rek nga ma desee loon waa ci lan lu fa xew. jël sama doom yóbbu xalaas teg ci télé bi fu ne nga jaay ko fa weer ko teg ma ci mbedd mi yóbbu ma marché ñu naan ñaata ñaata Kole yow sama doom ngay weer yow day xam naa ni sax sañ nga ko yow sañ nga ko. li tax nga wax ma ko sax daf maa jaaxal. waaw ci lan boo ko deful ba pare. waaw dama bëggoon ñëw. du yaa ngi yor téléphone bu bees. xaw ma foo ko jëlee nga lijjanti ne damaa retiré ji xaalis damay dem jël sa doom sàmm ko ci télé beeg rajo bi. jël suñuy photo taf ko. bàjjen kolle yow yaay baadoo la kolle yaa bon. kole waaw waaw lii la la ji. nga ne danga koy yóbbu weer ko jël suñuy problème sama biir néeg sama biir kër. nga yóbbu ko ci presse bi. waaw Kole loolu nga bëgg. waaw bàjjen yow. Kole loolu nga bëgg. du am waxal lu neex. du am waaye yow du am ci yow waaye dina am ci man décision bi sama décision te duma ci devenir. je vais le faire man am. waaw man dama koy def nag bàjjan parce que fii nga ma doon kii ñëw na fa te bokkul la Pape Cheikh dara. waaw yóbbu la ci Serigne man nag dew ma ci Serigne damay jaar ci ci àdduna bi wër nga këpp ñu ñu dinaa ko yóbbu ci Mouhamed Ndiaye. ñu wane ko fa wane sama photo. may ma expliquer appel yi mariage ba nu mu dawee lépp dinaa ko expliquer tout. waaw te nag mënoo ma téye damay ñëw fii li ma fi indi mooy saaga waaye kon direct laay def daanoo ci gën a gaaw toogal fii nag yow Collé déggoo li man a wax bàjjan xoolal ku may Collé foo jëm nii téye ah non yow toogal waaye même ma ñëw ay waay yàqu naa ay waa lii ko ma xale bi dina yàq sama àdduna man de weewu naa allahu akbar laa ilaaha illallah allo son son jaaxle naa taluma laa nuyu taluma wax jaaxle naa Collé a ah, son Collé may jaaxal Collé daal ñëw na yore na xaalisam nee na dem na ci Mamadou Mouhamed njaay la jëm nii am na rendez-vous nee na day dem xalaas weer fa weer Pape Cheikh nee na problème bi yëpp ca commencement ba ba fin da koy yóbbu ci presse bi son boo ñëwul dina ma xal de góor nekk fi kenn nekk fi mënuma koo jàpp ma nga ne di sol yéreem ah son yow rek laay xaar dimbali ma rek ngir yàlla jaaxle naa sama bopp tëju na léegi léegi rek. pare maa ngi ñëw dem léegi nag. ñaari version laa def français olof en direct la benn bi yëre olof laay sol mi ngi fi ma yóbbu mooy bii am ci télé bi bu rajo bi nag lii laay sol defee ko rajo bi rek mu simple ah. jël naa photo yi yépp pour suñu demee ñu posté ko maa ngi cee woon ma dégg nga ah waaw boo nekkee woon loolu man xam naa li ma la wax solution danga doon kii nii rek maa ngi cee yoon ba de wuy ma fàtte naa wool sama ñoom yaay dëkk ba nga leen ne damay jàll direct TFM dégg ak rajo bi ñu jàpp rajo bi ak ñoom samay nit ñoom maman Khady woo ko dégg nga ne maa ngi jàll direct bàyyeen bu ko fàtte waaye dimbali ma ci loolu tout à l'heure. buntu kër gi yow. laaj naa la ko. waaw waay yow tamit ma dem rendez-vous bi heure bi laa ko waxoon 17h. balaa may taal waaw du yaa mujjee dugg ci kër gi oh, bi dañ ko wàcc. est-ce que mën ngaa yeewu te doo wax ak man bu ma tudd. ba suma caabi man foofu ma de bàjjen wuy ma affaire du caaxaan de wu joxe naa rendez-vous ñu ngi bàyyi seen journal seen lépp instant dama war a jàll direct. te dafa woon beneen émission bu war a jàll après nee ma ñëw balaa émission ku caabi di commencé ndax man maa war a njëkk jàll bul ma yàqal nag yow tamit bàjjen jox ma pexe naawal soo të nga dajji bunt bi. baa damay dajji bunt bi man xam nga ma de caaxaanu ma nag yàq léegi cellule bi laay def dama jël jaasi. oo oh, kon foo nii de bàjjen bàjjen am na yoo xam ne rafetul jox ma caab bi ma dem bàjjen maa ngi tardé samay nawle laa waxante mu bàyyi rendez-vous yëpp ndax man bàjjen yow laay waxanteel bàjjen bàjjen bàjjen sama xaaj bi dama ko envoyé xaaj bi ba pare bàjjen yow laa wax jox ma caabi waa ngir yàlla bàjjen ni xam nga li ngay def nii rafetul xam nga ba nu ma liggéenti li may liggéenti ba mu ne kuréel ne kóob ba pare ba war a dem dem journal bàyyi nga may iñaane lool li li li yëpp da leen doon dama war a jàll TFM en direct bàjjen nga bañ ma dem waa bàyyi bàyyi leen def waa pourtant léegi bu daw ma ca télé ba ci rajo ba laay wax. monsieur le maire oui ça va alhamdulilah bien toi waaw mais ñëw naa depuis avant-hier voyage bi ça s'est bien passé alhamdulilah alhamdulilah ça va bien waaw Dakar nag moom gis naa am na ay changement quoi mais gis naa ay moom ay changement mais ça va alhamdulilah naa fi mais nag gars yi moom ñu ngi góorgóorlu ah. waaw moom mooy xam nga rek maa ngi xool gars yi comme d'habitude rek nit ñi moom comme New York moom <laughs> fii moom comme New York moom gars yi duñu toog dañuy dem di ñëw rek yàlla yàlla dolli jàmm fii rek waaye waaw voyage bi sawa va ça va ça bien passé xam nga rek jëm naa rek la mais affaire mère bi moo gën a indi waaw yow foog tollu sax ah, yàlla baax na yàlla baax na tantôt moom benn affaire am na quoi moom mooy loolu moom moo tax ma gën a ñëw quoi am naa affaire yu ma bëgg rek la fii sax mais bu mère bi moom. moom moo moom moo tax ma ñëw quoi parce que booy bi ma fi jógee yàgg na waaye yàgg na non non non yaw you can wake up mi wax naa la ko heure boo ma yee rek baax na pour profite rek nga dox dox bi quoi parce que comme li ma la ko waxee woon naa ah, j'ai les moyens j'ai les te li ma bëgg moom mooy ngeen la affaire bi man bëgguma jógee fii dem dellu use ba te gisuma maire bi loolu moom bëgguma ko quoi hmm, maire bi jaral na ma lu nekk quoi instant yi moom bu yeboo mu réunir wu sax mais xola naa gis sama yaay rek incha allah I want to see my mother boy fastly ok waaw non non non yow xoola moom laa lay wax su may nelaw sax xoola you can wake up me don't worry yow yéema rek na ma mère bee ngi ni man mën a ñëw incha allah ah. waaw kon alhamdulilah kon jeex na man maa ngi lay déglu temps fu nekk nii moom dafa am benn affaire boo bëgg rek la ji rek dem xooli tata accessoire après sax am gën a tàccu incha allah naa la woowaat comme a ñu gën a déggoo waaw léegi <laughs> non ñoo far ñoo far mais mais xoolal ay miss yu nag monsieur le maire wala ma siiw waaw waaw bul wax dara waaw d'accord take care ok siiw nag. Allô Oui, comment tu vas Ça va bien. Ça va. Oui, euh, que... Situation bi xaw na changé tuuti quoi. avec ma tante Yacine. léegi dafa changé nu mu meloon ak man. Euh, bañ na ko ba sax léegi dafa wut jànk santatuma ma def dara. ah bon. la preuve bi may ñëw nii léegi sama kër copine bi moo ma jox moo may paasu taxi. Yacine daf lay jox paas léegi. oui ça m'a semblé euh, un peu bizarre. ah bah contente. man waxuma wax waxuma loolu yëpp sax man wax bi wax bi mooy man léegi dama bëgg ñibbi sama kër yaay. xam nga nii ngay def di ma énerver encore sama yaay kañ nga ko gëj a gis. pourquoi nga wax loolu. yow da nga mën da mënul jàpp sa xel mi que maag yow dañu am nattu xam nga nattu bi mooy lan. amuñu ndey amuñu baay on est avec des parents irresponsables ku ci nekk dem nga def sa vie de ton côté. lijjanti woo doom nga naan ma ay je retourne chez maman est-ce que yow nit nga. tous les deux refait leur vie seen yoon nekkul ci yow. walla ci man dama bëgg nga déglu ma bu baax dafoo jinne jàpp la concentre-toi termine ton examen amal sa baccalauréat tu auras dix-huit ans et man je te récupère. ok. je te récupère. Il pas de problème. Je pense que c'est la seule solution, mais c'est pas de retourner chez papa wala chez maman. nga naan ma ay maman bu ko sax def sa xel dindi ko sa xel léegi léegi léegi léegi léegi. yow on que on est que deux on que deux jàppal ne àdduna bi ba mu daj man ak yow kese ñoo fi nekk alors soit da ngay ñëw nga nekk ak man sa àdduna mën a neex nga mën a avancer facilement parce que je serai toujours la pour toi et man également j'ai besoin de toi j'ai besoin Je t'appellerai un peu plus tard, d'accord T'inquiète. Allez, bisous, ma chérie. Bisous, ciao. kii kan la waay madame accessoire yow xanaa moment bi ma la wooyee ak bi ngay ñëw nii léegi benn la lii la ñuy wax ci sa bëri bagage. waaw mais man dama tiit yow prince sama prince sama bopp sama prince bopp man. maa ngi nii de. nga ne jëpp Sénégal sama yëg ko mais prince lan la ba du mariage asu bi nga dégg nouvelle bi nga dégg moo tax nga ñëw. nouvelle bi sax yéeg naa ko mais du loolu moomu indi biir Sénégal quoi. Sénégal moom sama problème mère moo indi xaw sama mère boobu ba léegi xaw ma ko te léegi il faut ko maa ngi soog a soulagé ñëw nga dama tiit ba comme parce que maa ngi naan boo demee di nga mer te xam nga ne man bëgguma nga mer parce waaye nag ki lay jox añ bu nee di nga ndékki wala di nga reer war nga ko mën a gëm te prince nag loolu defal nga ma ko ngir asu mbay mii nag. Ah, mais il faut savoir que ni gis nga asu sëy bi prince tayu ko dañ ko liggéey Pape Cheikh dégg naa xale bu mu doxaan bëgg la takk da lay liggéey bu la takkee ñetti fan ñeenti fan mu fase la seeti ah, keneen kon Pape Cheikh lañ ko may waaye Pape Cheikh lañ ko may Pape Cheikh Diallo ah moom du garaaw quoi parce que Pape Cheikh moom vraiment moom doyuma sax ay ndekki ba may doy moo xam moom moo ci dara comme nag instant bi yaa ngi ci sa ko ba pare ñu soog a jublu nag ci wàllu asu mbay mais cadre asu moom bul ci tiit bul ci ragal bul ci am leen lay xof maa ngi fi te lool moom ma yëkkati. waaw mais nag yow xam nga ne bu jënd bëggee Dakar ku yëg day daanu. ah wax nañ ko de. te yow xam nga ne yow foo ñalangoon ne fu nekk doo a daanu yow da am bu ñàkk dee am <laughs> Pape Cheikh mooy ñàkk. Prince Dolso maa ngi nii ñëw naa de nañ tey keer nag de pour ay Pape Cheikh ak yooyu asu moom. c' est def na ni ñu mosuñu jàkkaarloo mais bu ñuy jàkkaarloo mu nopp ma de bàyyi. ngay wax ndànk. yow bu jàkkaarloo xam ne xam ne yaa du ngeen benn yow tamit nag. Pape Cheikh moom nga xamante ne nii moom ak nger mi faj soj yow nag nga doon xale bu ndaw coofe roofe doore asu daf lay gis rek barde parce que xam naa ne asu sa sa genre wër non non mooy léegi loolu prince prince prince baax nag li ma tàmmal loolu la ah yu baax yi gën a defanteeg man doo ci defanteeg man comme nee nga ni comme nee nga cëpp te tàgguwoo ma dafal nànk xaalis rek ngeen bëgg yéen moom waaw jox ma 700 dollars rek 700 rek baax na 700 yow doo laaj ay cinquante dollars cinquante mille ak yooyu ngay laaj ay sept cent dollars. yow tamit nag prince yaa ma ko tàmmal di. <laughs> nag waa léegi mbalak parce que man moo nit moo yor ni instant yi nii honnêtement pour sama mbiru yaay ak mbiru asu parce que asu moom il faut que tey kër ci ay réglem sama yaay laa bëgg a toppatoo bu ñu paree rek man jublu ci asu. mais du tey yow coow ji dinaa jéem a def dara ndax sama jigéen nga. xam nga sama gars yi mais xam nga ni bi ma jógee États-Unis bi ma ñëwee Sénégal ba jusqu'à présent ay problème yu bari laa fi fekk. li oh, oh, ma fi ay problème ëpp na conteneur est-ce oto mi ngi garage jëlewu ma ko. yow léegi mais maa ngi benn affaire boo xam ne du ñàkk parce que yow nu mu demee la comme fu ñu gisantee ba def ci yow. maa ngi benn mooni bu ndaw lii benn 500 ba jàppal ci lii rek après ñu rek la dégg nga. presque lii lan la 700 nga laaj ma jox la 500 loo bëgg te yow. ah Prince léegi ay 500 ngay joxe. dama koy nangu de xoola naa gis asuma pare rek man dama ko bëgg gis instant yi nañ dem ko ah, waay bëgg am la fa sës. Eh, dama gis da koy gis wax naa da nga koy gis te yàlla rek yow koy. yow nga ne asuma mi ngi fii dama xeeñ ci ba pare mi ngi sama kër. du ma ko gis. da koy gis Prince. waa kañ. yow xalal yow neel tekk rek. ba ma pare li ma ba pare ba ma pare samay dossier tombeek nga pare sa dossier yaay comme ça sa bopp mën a sa esprit mën a tranquille bu ko defee nag xoolal may jàpp sa loxo bi ba ci as hmm. loo ci deful yow la yoo xamante nañu <laughs> yaa wax loolu <laughs> maa ko wax te dama koy def waa <laughs> léegi kontaan naa yow xam nga ni moos sama maa ngi soog féex nag sama esprit tranquille na instant bii nag dama stressé woon bi ma Ngoné njaay ne ñëw nga prince tuuti ma dof en tout cas naa la benn affaire moom bëgg naa nag quoi ni ma la gis parce que waa New York yi moom ñu ngi lay laaj non ñoom xam naa ni moom fi instant mën nañuy wër waaye man maa leen wëratul maay wër problème bi man moom ne karaj ne koy yow xam nga ne asu da nga jot boo jot ci jot ñu ne <laughs> xam naa kon yow après rek waaw coodu jib nañ déggoo rek jeex na tàkk yow ñu ah, far non non ayul kool yoo léegi xoola kii sama suite bi dalal ma ko benn gis nekkul il faut ñu gise dégg yeah no ah, problème take